ña ca des ne ànduñ ci et pourtant ñoom ay porteurs de voix lañu euh, donc naka la euh, audience boobu la demee ak lan la ci euh, communicateur traditionnel yi wax daañ ci waxtaan ak El Hadj mbay Garmi mi nga xamante ni bu ca kanamee dinañ ko fekk këram et bu 10 heures pile jotee dinañu dem ministère de la santé et de l'action sociale bu ko defee ñu baaxee ñu point wu tay bi tombé ak 2 avril 2020 dinañu déglu directeur de cabinet wu ministre bi wala ministre bi ci boppam bu ko defee defee mu defal ñu euh, point wu tay bi à partir de ce jour itam euh, jël nañu décision di waxtaane yeneen feebar yi ndax fi mu tollu tembe euh, coronavirus bi muur na feebar yëpp ba am na ci ñoo xamee ni am na nu yeneen jàngoro xamuñu nu ñuy def nit mën na am urgence guddi couvre-feu bi ñu nekk fu muy jaar on a vu ci faits yi ne am na ko faatu ko xamee ni bi ko feebar dikkalee xaaja guddi amul lu ko yóbbu ba daa mujjee faatu am na itam yeneen i nit yoo xamante ñu ngi ci xamante ni ci yeneeni i euh, santé la ñuy yëngu bu ko defee ñu sensibiliser euh, ñi nga xamante ni ñooy dund euh, xeetuk feebar yooyu le par exemple tey dinañ jéem jokkoo ak benn gynécologue ngir waxtaane jigéen wérul ak coronavirus bi yan risque la ñu am jigéen ñi nga xamee ni ñooy nampal yan risque la ñu am xale yi nga xamante ni ñoo juddoogul ndax feebar bi mën na jaar ci deret ba ndey yi nga xamante ni ñoo ëmb seeni doom wàll leen daañ ci waxtaan ak ki nga xamante ni moo di docteur Abdoulaye Diop moom ab gynécologue la ci benn clinique euh, dinañu jokkoo ak moom en visio euh, télétravail euh, bu ca kaname li ñuy njëkkee nag mooy décrypter tuuti expliquer leen yenn ci ay mbir yoo xamante ne jàpp nañu ko ci wàllu actualité ak Chérif Dia qui vient nous rejoindre Chérif ñu ngi lay nuyu di la gërëmati ci teewaay bi coronavirus coronavirus tey itam on en parle. oui on en parle surtout que tey ginnaaw bi nuyu mbokk téléspectateurs yi rafetlu seen ànd ak télévision Futur Média tey Pape day bis ni ki tey la am weer bi fi jàngoro ju duggee ci Sénégal muy le 2 mars kon ñu ngi ci le 2 avril. moom moo tax yaa ngi koy wax sànq le ministre de la santé. ginnaaw point bi dina def benn conférence de presse pour ñëw ci bilan bi ak mesure yi nga xamante ni tamit ak évaluation bi. Mhm. Euh, muy conférence de presse boo xamante ne du mel ni comme euh, conférence de presse traditionnelle li nga xamante ne journaliste yi dañuy ñëw jàkkaarloog moom comme dañuy bañ daje question yi par internet la ko nit ñi yónnee su ko defee moom dina ci indi tonton moom Ablaye Diouf Sarr ak kii ñooñam muy loo xamante ni kon mën nañ ko wax fi mu toll Sénégal mi ngi ci cent quatre vingt Euh, tey tamit ñi ngi xaar beneen bilan boo xamante ni mi ngi ñëw xëy na sax ñu egg baaru deux cent cas yi parce que ñi ngi woon ci cent bi semaine bi passé muy loo xamante ni kon mën nañ koo jàpp ci euh, jàngoro ji tooluwaayam fii ci Sénégal diggante mi nag <clears throat> lu bari xew na fi le 2 mars ba léegi am na fi cas yi wér bërki démb enregistré nañ fi premier cas de décès muy Pape Diouf nga xamante ni démb mm. lañ ko denc ci sëg yi ci Yoff euh, ci sutura comme ni ko jamono laajee ak jàngoro ji nga xamante ni teewaayu mbokkam yi ñoom ñoo ko fekkee waaye ginnaaw loolu également wax nga ko beneen cas bu critique bi évalué évacué nañ ko yóbbu fa nga xamante ne mooy bitim réew ni ko mbokkam yi sàkkoo mhm. euh, am na fi ay cas importé yu bari nag parce que bul fàttali ni benn nasaraan moo fi njëkk indi mhm. ginnaaw loolu cas contact yi bari Sénégal dem ba ci biir commencé nemmeeku beneen xeetu contamination ñu ko wax contamination communautaire mhm. entre temps aussi y a eu l'état d'urgence euh, mooy bi nga xamante ni ba léegi ñu ngi ci ñu nar ko sax renouveler yokkaat ci yeneen ñetti weer gis na ni également démb en conseil des ministres muy njàng meeg njàngale mi am na lu ci yokk ndax gone yi dañuy toog ci kër yi ba gën gaa yàgg ñeenti fan ci weeru mai kon mel ni daanaka ñoom ñi ngi ci vacances forcées ndax ko Covid 19 bi ni nga ko waxee marché yi également am na ay mesures yoo xamante ni jël nañ ko fii transport bi la même chose rawatina dem beeg dikk bi ci diggante gox-goxaat yi wàllu diine gi également laal na kon ndax gis na ni léegi julli mbooloo amatul. muy julli juróom ba ci sax julli àjjuma. muy loo xamante ni kon jàngoro ji tax na nit ñi adopté compartement yi ci weer wi nga xamante ni ci lañ génn. ci point yooyu sax laa bëggoon ñu ñëw ngir gën ko expliquer euh, téléspectateurs yi point bu njëkk bi ci wàllu actualité. ni démb ba tey ñu ngi dégg ni euh, njàng mi ak njàngale mi dakkal gi ñu ko dakkaloon dañu koy prolongé euh, yokk ko ba le 4 mai euh, di décision boo xamante ni mu ngi jógee ci président de la république démb ci conseil des ministres bi mu doon amal mu toog fa mu ne ministre yi ministre yi toog ñoom itam fa ñu ne rapport boobule ministre en charge de l'éducation et de l'enseignement supérieur moom moo ko proposé président de la république lan la la askan wi war a comprendre euh, ci euh, information boobu Chérif Dia. waaw li ñu ci mën a comprendre mooy euh, président de la république ndeem sax moom mooy njiitu réew mi. Mm. waaye taxul moom rek dogal yi daf koy jël nii rek yeewu rek jël dogal. Mm. domaine bu ci nekk xam nga fa yi ñu ko doon wax ci li nga xamante ni kon mooy état d'urgence ak couvre-feu. Mm. loolu personnel médical bi ñoom ñoo daje ne ndeem sax confinement teel na wala mënuñ koo def. mais li ñu def mooy benn jamono buñ ca tollee bu vingt heures jotee ba ñu amul couvre fa loolu euh, du président moo jël dogal bi ay techniciens ñoo xalaat ni war nañ koo jël ñu xalaatal ko ko dernière décision bi nag c'est vrai que moom moo ko jël ci la ko jël bu dee nag wàllu njàng meeg njàngale mi comme ni nga ko waxee dafa ëmb ñaari ministère bu dee njàng mi la moom lañ naan ministère de l'éducation nationale ministre bi mi ngi tudd mooy enseignement supérieur ak recherche nga xamante ni kon mooy Cheikh Omarane ñoo ko jiite ñoom seen ñaari njàng euh, yooyu ñoom ñoo dajee ak seen i technicien xool ne situation bi fii mu tellu Sénégal gis nga ko épidémie bi mi ngi ci pic boo xamante ni mi ngi jëm ci yeneen réew yi sax njàng hmm. nga xamante ni kon ba léegi ñi ngi essayer di endiguer le virus à travers quand même mesures yi nga xamante ni moom mooy daje mbooloo ci loolu quand même la nekkoon dañuy prolonger li nga xamante ni mooy décision bi jëloon ko kon ba gën gaa yàgg ñeenti fan ci weeru me kon dañuy toog ba ñeenti fan ci weeru ma fii ak weer encore gone yi toog comme ni ko waxee mais toog nag taxul rek ñu ñu ne yaacaara parce que après bu épidémie bi jàllee xëy na mën xoolaat nan lañ def pour réaménager li nga xamante ni mooy calendrier scolaire ak bi hmm. laataa loolu nag xëy na parents yi comme initiative yi TFM jël di jàngal gone yi ci télé yi way jur yi aussi je pense que am na yenn mesures yoo xam jël nañ ko à travers ni nga ko waxee xarala yu bees parce que toll nañ foo xamante ni même les répétiteurs la soxlatul ñuy jugee ci seen kër di ñëw ci kër yi di jàngal gone yi am na ay WhatsApp ak yeneen application yoo xamante ni mën nañ toll comme ni nga waxee visioconférence moom mm-hmm. c'est c'est en vogue moom moo tax kon ñu jaar moo tax kon ñu ne gone yi di toog seen kër boobaa nga xamante ni kon ñi ngi xool ne say def ba jàngoro ju mën koo jëlee fii ci donc décision bi daal li tax ñu jël ko mooy comme ni nga ko waxee rapport la boo xamante ne ñaari ministères yi ñoo ko déposé sur la table du président dem mu daal di koy entériné en conseil des ministres. ñi nga xamante ni ñooy yëngu ci euh, wàllu euh, formation professionnelle euh, ñu ngi may xamal ni am na benn plateforme site boo xamante ni nañu ko pour ñi nekk ci formation professionnelle nga xam ne actuellement mënuñoo jàngi peut-être ñooñu sax ay mag lañu donc dinañu a dugg ci benn site bu tudd i bi a été Euh, par ministère euh, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'artisan euh, pour ñi nga xamante ni ñooy jàng mën nañ ko télécharger ba noppi itam am ay cours waxtaan ak jàngalekat yi enseignants yi à partir de benn forum boo xamante ni mën nañ ci découvrir yu bëri donc c'est une information que je reçois et je partage avec vous en même temps peut-être dinañ jéem jokkoo en visio ak ki nga xamante ni mooy directeur de la formation professionnelle di Pape Abdou Fall bu ko defee mu indi ci ay leeral apprenants yi daa bëri ay catégorie am na tout tànk yi am na ñu digg dóom ak ñu nekk ay mag mais ñoom ñëpp euh, ay avenir u Sénégal lañu euh, donc donte dakkal nañu euh, jàng bi ba peut-être le 4 mai parce que dara wóoru itam mën nañ ko sax bu situation bi évolué wut a yokk mais je pense que ci biir kër yi c'est le moment où jamais ñu profité quand ci moyen bu ñu am rek pour jàngal suñu doom yi. muy lu am solo et je pense que loolu waajur yi bàyyi nañ ci xel parce que am na ay initiative personnelle yoo xamante ni ñu ngi koy jël ñu gën yoo ni également ñu ngi jël seen avenir en mais parce que toll moom na mën naa dem sax ba jur ay mélange ak yu ni mel parce que gis nañ ni euh, xamuguñ kañ la fi jàngoro ji du jóge ci àdduna bi mm-hmm. même bu jóge woon fii ci Sénégal it te jógewul ci yeneen dëkk yi dafa mel ni jógewul fen ndax dem beeg dikk bi ni mu mais wax nga ko sànq mbiram euh, formation professionnelle de loo am am solo parce que comme ni ko waxee Sénégal ñëpp mun ñoo rek bu ñu amee baccalauréat wala ñu am BFM mm-hmm. dem université wala feneen am na ñoo xamante ni il faut ñu jàng métier mm-hmm. looloo tax kon mu nekk un sous-secteur euh, du de l'éducation nationale muy formation professionnelle xëy li ñuy encouragé léegi di ci woote également mooy comme xarala yu bees yi la te mm. égalité aussi dafa baax ci loo gis ñu jabootee doomu sénégalais fi nga xamante internet eggu fa nan wax ak ñi nga xamante ni opérateur de téléphone yi quand ñu yeggale euh, mhm. a waa ñi nekk ndakaaru bañ leen a ëppal dara parce que mhm. ñëpp benn lan donc mhm. je pense que loolu day am lu am am solo loo xamante ni war nañ cee gën a bàyyi xel bu ko defee kon ñu yaatal ko et ñu gën def yaxandal également ci li nga xamante ni moom mooy loolu gën ko woyofal ndax euh, connexion daa jaar moom avant crise bi waru ko mën a jaarati mhm. moom moo tax ci wàllu solidarité boobu gis na ni ay effort yoo xamante ni opérateur de téléphone yi ñu ngi koy def mais buñ ko mënee buñ ci mënee gën a góorgóorlu su ko defee kon doomu Sénégal bu nekk fu mën a nekk it mën a jot ci xeetu plateforme yooyu nga xamante ni kon Euh, bu bu bu dakkul rek mën naa gën a euh, privilégié ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci réewu taax yi te ñi nekk ci kaw gi it ci lañ bokk. voilà parce que Sénégal euh, chaque jour ñu wax ko du Dakar kese Sénégal dëkk yëpp la donc égalité obligation la pour njiit yi def ko fu nu matale mbir ci dëkku taax yi na nu fexe ba matal ko ci yeneen i dëkk matal ndox mi matal courant bi chaque jour ngeen dégg ci télé yi ne am nay jigéen yoo xam ne buñ dee wasin ci yenn gox dañ leen di teg ci ay charrette amuñu dispensaire amuñu poste ne euh, yenn saa nga dem seeti sa maam ci village euh, boo fa demee da ngay fekk ni ñoom amuñu ndox euh, mu set amuñu eau potable et pourtant dañoo nekk ci période mm-hmm. crise boo xamante ni ñu ngi digle cet waaye ki nga naan setal te joxoo ko moyen bi mu setee itam loolu defe naa baaxul it baaxul te lu am solo la Pape ni nga waxee ñoo nekk ci ci diwaan yi nekk à l'intérieur du pays surtout mm. koo gi ñu donc la ba ni tu as l'impression leen ay moyens ya ah. non non looloo tax sax incha allah fi dalal fekk ëllëg incha ministre bi nga xam moom la dénk wàllu mooy yemale gi. Mhm. muy euh, Mansour Faye su ko defee ñu ñëwaat ci loolu lépp ngay wax parce que mm. ñu euh, euh, a a mm. nekk Ndakaaru am nañ jàmm bay dund wala nangam lépp luñ fiy dundee fa lañ koy defaree indi ko fii donc je pense que il faut que ñu gën a jox cër ñi nga xamante ñoom ñoo nekk ci dëkk bi looloo tax Macky Sall fi créer justement xeetu ministre ministère ci wàllu développement communautaire su ko mhm. defee euh, yenn initiative yi c'est important ñuy wax ay PUDC li nga xamante mooy dem beeg dikk bi di def ay piste rurale wala nga xamante ni également mooy ay forage aussi ñu defal ko fi y a des efforts yoo xamante kon moom mooy yokkuteeg réew mi mais je pense que comme crise bi dafa ñëw freiné initiative yu bëri y'a lieu comme ni nga waxee noonu fépp foo xamante am nañ jafe-jafe ci wàllu ndox di raxas seen loxo il faut ñu am ndox moo xamante ni moom lañ mën a raxasee seen loxo ngir cet googu aussi ñu daal di koy gis étant donné que le virus comme ni ñu ko waxee buggul foo xamante ni dafay porox ndox lu jàll fa à travers ay mbir yu salte ni mel et message bu am solo bu la boo xamante ni nga ko jëm ci wàll woowu muy loo xamante kon eh, yeggale rek ndox mi mooy équité bii nga xamante ni dañ koy wax ci wàllu territoire te loolu également ñi jiite collectivité territoriale yi aussi am nañ ci responsabilité bu am solo boo xamante war nañ ko gis nañ fi ay municipalité yoo xam commencé nañ jël ay ay ay comme ni nga ci wàllu woowu parce que ñoom voté woon seen budget déjà mais budget bi comme dafa am mbiram fonctionnement ak li nga xamante ni mooy ay dépenses yoo xam ñu ngi koy def te fonctionnement yi lu ci bëri ci mbiram caaxaan la woon ay poog yu ni mel je pense que y a ñu réaménager ñoom it seen budget boobu def ko ci li nga xamante ni mooy ndimbal parce que ñi ngi koy wax c'est vrai que c'est bien nga dem ci ministère Abdoulaye Daouda Diallo yóbbu fa ndimbal fay dund ay masque ay masque voilà ay gel antiseptique c'est important fa yi nga yaakaar nii rek euh, jarul sax muy egg si Ndakaaru wala caméra yi ñu koy braqué yow et cetera je pense que a a ko defee kon euh, problème bi dinañ ko teel a fii Sénégal beneen actualité bi ñu bëgg nga décrypter ñu ko wala expliquer ñu ko ñu mën koo comprendre comme ñun euh, dañoo ñamee grand place ak explication on reçoit presque toutes sortes d'informations actuellement ak ni internet bi mel dëkk bi euh, bi ci topp mooy te defe naa dafay euh, méngoo tuuti ak li nga doon wax ni euh, ndimbal gi des koy yaatal ndimbal gi nga xamante ni mooy jógee ci gouvernement pour wàcc ci askan wi maa ngi gis ci information yi ni lu toll ci cent quarante six mille tonnes d'aide alimentaire du concerné Dakar Thiès Pikine ak Rufisque sénégalais yi nga xamante ni ñoo nekk ci tranche sociale bi du ñu fay courant ndax mën nga ñu expliquer itam dogal yi nga xam ni jóge na ci président jëm ci ndimbal gi mu nar a jagleel euh, ki nga xamee ni soxla na ko ci période bi déjà yéen ci mën a jàpp dem conseil des ministres am na loo xamante soxal na daara yi daara moderne yi wax na ni koppar yoo xamante ni trois cent millions ngir daal di leen koy dimbale bu fekkante nag aide alimentaire bi encore une fois dañ koy répété un budget la de milliards yoo xamante ni dañ ne loolu koy jagleel bu njëkk soixante milliards la après ñu yokk ci neuf milliards euh, ni ko président waxee woon cinquante plutôt après ñu yokk ci dix yoo xamante ni moom moo tax kon mu nekk soixante neuf milliards de francs lii nañ également ci journal L'Observateur moom moo ñëwaat ci mooy ñu ne am na ci diwaan yoo xamante surtout ci capital bi soxalu leen loolu aussi mooy li wax bis bu ñu amee occasion jàkkaarloog ministre boobu di Mansour Faye mi nga xamante moom moo yor département boobu dina ñu ko gën a leeralal ñu wax ko parce tamit euh, ndóol gi moom daanaka dafa yemul rek ci dëkk àll yi am na aussi ci Ndakaar yoo xamante am nañ fi yaa ngi koy wax sànq am na ñoo xamante a fay a

approfondir pour ñu xool euh, impact bi ñu mën leen a dimbale ci li nga xamante ne mën nañ cee jàpp en attendant kon situation bi di évoluer. et puis euh, tey euh, ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr dina rendre compte sénégalais yi ginnaaw bi crise bi defee daanaka weer fii ci Sénégal dina def bilan combat bi nga xamante ni ñoo ngi koy mëne bopp ba tey contre feebar bi ñu tuddee Covid 19 2 mars ak léegi Chérif wax na ko sànq daanaka def na weer. Euh, lan la ñu mën a xaar euh, ci euh, bilan boobu la nga xamee ni tey Abdoulaye Diouf Sarr dina ko amal juste après point bi. waaw euh, ni nga ko waxee noonu la bilan bu bu nu war a mën a xaar la parce que Sénégal il faut mu def taxaw seetlu déjà ci euh, euh, gestion pandémie bi bi mu fi commencé ba léegi est-ce que efficace na wala déet. c'est vrai que am na ci loo xamante ni am na solo mais am na loo ne aussi je pense que war nañ ko mën a joyanti bu dee ci wàllu communication la wàllu comme ni nga ko waxee prise en charge nga xamante ni ñoom ñooy les cas parce que gis nañ fii am na foo xamante ni amoon na fa problème surtout respect mesures yi ci yenn diwaan yi nga xamante ni kon gis nañ ko fi ci Sénégal beneen bi aussi. ci mooy comme ni ñu ko waxee les cas parce que gis na ni ñu ngi yaatal bu njëkk Dakar rek la woon ak service des maladies infectieuses mais dem nañ ba comme dépassé baaru cent bi centre de charge yoo xamante kon bu fa jafe-jafe amee nit ñi mën ko faa yóbbu je que loolu am na solo beneen bi aussi moom mooy ci wàllu test yi parce que gis nañ au début institut Pasteur rek moom moo ko doon def après aussi on a appris que IRSF ba Souleymane Mbuub yore moom it dugal nañ seen loxo ci li nga xamante ni mooy wàllu test yi am na ci ay borom xam-xam yu jàpp ne même dépistage bi dafa yéex parce que nii rythme bi demee chaque fois ay centaine rek la ñu jël euh, pourquoi pas ñu def dépistage massif bu nga xamante kon euh, mbir yi gën naa mën a yaatu su ko defee ñi am jàngoro ji ñu teel a xam ñoom ñëpp confiné leen su ko defee kon dinañ mën a régler le problème je que loolu borom bari na boobu ba léegi gis nañ ko ministère bi sax léegi transféré na ko jëlee ko santé ñu yóbbu ko ca ministère des finances et du budget bu Abdoulaye Daouda Diallo loolu lépp également xew na fi ci euh, crise lañ nekk mais euh, taxut tamit euh, ñoom ñi nga xamante ñoom ñooy jiite ñu war a def lu la neex soit ci wàllu koppar yi mais aussi ci wàllu information surtout parce que booy jiite ay nit également da leen di wax dëgg ci wàllu ni nga xamante moom la mbir xamante ni nemmeeku nañ ko ci loo xamante c'est très positif. ils bi ministre bi di waaj def lu baax la ci réew euh, mais defe naa bu bilan bi passé ba crise bi passé itam euh, dinañu rendre compte sénégalais yi. waaw mais bien sûr loolu moom mooy transparence mais loo xamante surtout si en cours mi nga xamante ni ngi fiy daw moom loolu moom nit ñi dañoo war a di am information parce que bu fekkee ne information bi ñi koy am à la je pense que loolu mooy tax kon rumeur euh, du am mooy rajo kankang yi nga xamante nga nga dégg wala nit ñi di foyee ci weeru foree ci weewu béy te loolu mooy indi ay xiini mini te xeetu épidémie yi moom dafa laaj loo xamante information bu juste boo xamante je pense que les professionnels ñoom ñoo ko war a jox ñi nga xamante ni kon ñoom ñooy les populations su ko defee ku ci nekk à ton niveau ñu informer la ci loolu aussi je pense pam ñi nga démb ñëw ni voilà les langues nationales parce que dafa am solo waruñu rek di ko wax ci nasaraan wala ci wolof et cetera ñoo xamante ni ci réew mi di nekk ci yeneen kàllaama ñoom it mm. je pense que nañ leen ci bàyyi xel loolu aussi à travers même les médias yi nga xamante ñoom ñoom ci nekk jaare ko ci mm. su ko defee ku ci nekk tamit ba dara bañ laa ump ci jàngoor ji parce que bu ko ñëpp amee la même information en même temps je pense que dina mën a dimbale parce que boo dee jël ay décision wala ngay euh, nga jiite dëkk euh, euh, looy def rek danga nga ko war a méngale ak réalité dëkk bi mais moi quand j'entends réalité dëkk bi on ma parle de kii yorul kii yor na loolu mooy réalité bi ñun li ñu xam mooy dajaloo mais am na yeneen réalité yoo xamante ni xaw ma ndax comprendre nga fi may waxee ñoo gën a important que réalité yi ñuy faral di jël allusion. tout à fait moo tax ñun war ñoo importer le modèle occidental. bu ma toogee fi ñu naan ay confinement ak yooyu. est-ce que comme ni nga wax noonu walla am na yoo xamante ni réew mu ku nekk dafa am euh, ni nga xamante ni moom la sa réew doxee il est heureux de l'apprendre colloque mais réunion de crise bi je am na ñu confinement mm. mais je que am na ñu ko teel a dàq boo xoolee li la wan ne réew mu nekk dafa am réalité. Ah. xam nga léegi kilifa diine yëpp nangu nan ànd ci dogal ñu tëj jumaa yi mais mhm. dafa am yoon woo xamante ni kilifa yi dañ faa waroon a jaar mënoo tëb nii rek imposer ko wala nga jaar ci ñoo xamante xëy na tekki wu ndal wala représenté wu ndal Sénégal dafa am ay réalité am biñ jaaree fi ñu war a jaar les autorités accepté nañ na ñooy gisatoo fenn foo xamante ni am na am na ay réticence waaw loo xamante ni dafa am ko loo xamante ni mhm. réalité Sénégal la donc dun dégg rek loo xamante waa bitim réew ñu ngi koy def wala waa France ñu ne dañ koy indi pense que loolu war weesu sax Sénégal ba ci Afrique de manière générale ñu xool aussi ne say def ñun euh, comme ni ko Union européenne defee wala États-Unis et cetera boobu amul euh, c'est en Afrique mais war mën a nekk loo xamante malheureusement déggoo ci kuréel yi nga xamante ñoom ñoo nekk ci Afrique muy Union euro africaine wala nga xamante mooy CEDEAO et te loolu moom mooy sooxeel li nga xamante kon moom mooy suñ développement fii ci Afrique mais je looloo tax booba léegi gis nañ ñoo xamante ni ay socio anthropologue lan wala ñoo xamante ni seen xam-xam dafa màcc ci wàllu science sociale ñu jàppale leen si su ko defee loolu lépp day bokk ci li nga xamante ni mooy yombal xeex bi jëm ci li nga xamante ni mooy jàngoro ji. voilà euh, ndimbal laa ngi tollu ci euh, cent quarante six mille tonnes de denrées euh, l'observateur moo ñu ko xamal tey ci xëtam ba xamal ñu li ma la wax sànq ni am na ay dëkk yoo xamante ni duñ leen ci boole dëkk bu mel ni Dakar. Euh, Pikine euh, Rufisque ak Thiès pourquoi euh, explication yaa ngi ci l'observateur bu tey bi et puis président jël ay mesures yoo xamante ni dina jëm ci wàllu chômage technique prise par des sociétés privées parce que ñoom ñoo moomal seen bopp seen i entreprise et que bu xeetu crise yi amee daanaka société ba mën naa fayit am na ci Chérif wax na ko sànq ñu bëri ñoo xamee ni ci secteur ya ñu woon crise bi daf leen laal ba nga xamee ni ñii fayeeku nanu ñii wàññi nañu seen salaire salaire ñi ci des nee leen ñu toog man je connais quelqu'un boo xamante ni on leur demandé ñu toog carrément euh, du ñu leen fayati et que euh, bëri na ci euh, ay morom loolu doon lu xaw a doy waar l'observateur mu ngi ko titré Macky la met la met dans les sacs et coronavirus bi presque toute la presse écrite moom la ñuy xëyee tout le temps on peut découvrir quelques autres unes yoo xamante ni ñëw nañu ak taxawaay président démb ci conseil des ministres bi mu def en mode visio euh, Vox Populi par exemple nee na Macky Sall euh, seul maître à bord euh, loolu la titre ci français ñuy lire ni le président de la République concentre désormais les pouvoirs exécutifs et législatifs pour trois mois loolu itam mu ngi jëm ci crise u coronavirus bi voilà et puis yeneen journaux qu'on découvrira peut-être bu ca kanamee ci diggu bëccëg gi ak revue de presse bu Euh, rédaction bu télévision Futur Média le quotidien par exemple euh, gis naa ni unam euh, bu tey bi mu ngi wane encore li Chérif doon wax ni virus bi crise bi def na un mois fii ci Sénégal 2 mars la woon ba tey 2 avril lu toll ci 30 jours yoo xamante ni yéen kaay bi 30 jours de fièvre la ko tuddee 190 cas positifs 45 guéris guéris 1441 tests réalisés ay vacances scolaires yu ñu prolongé ba le 4 mai assemblée bi di war a voté Euh, wu abilitation euh, wu habilitation bi euh, ak yeneen i mbir yoo xamante ni bokk na ci lu ñu mën a jàpp ci wàllu actualité Sud Quotidien aussi qui revient encore sur ce qui s'est passé hier ak conseil de ministre visio bu président de la République ak taxawaayam ci crise bi li nga xam ni moo di crise coronavirus Macky confine l'école perfuse les daara voilà trois points de suspension daara yi naka lañ leen di taxawoo loolu itam moo ci Euh, Sud euh, Quotidien voilà il reste d'autres journaux on voulait juste vous en montrer quelques yoo xamante ni ñoom ñëpp ñoo bokk euh, li ñu xëtee et puis enquête j'ai vu que ñu ngi def ci une bi ki nga xam ne ni boobu ba tey ñoo ngi gis image am di professeur Moussa Seydi moo jiite service maladie infectieuse bu hôpital Fann bërki démb na ñu ab entretien ak moom mu kon waxtaan ak Cheikh Diop bu rédaction bu télévision Futur Média moom nag yéenekaay bi daf ñu koy présenté euh, ba tuddee ko tel quel euh, professeur Moussa Seydi infectiologue le rempart alors bu ngeen bëggee xamante ak moom allez lire euh, journal boobu ndax enquête na ci moom ngir ñu gën a mën a xam kan mooy professeur Seydi euh, voilà donc li ci des euh, je rappelle encore que bu ca kanamee ci diggu bëccëg gi euh, daañu ko déglu ci nu mu gëne xóot ci revue de presse bi ak rédaction bu télévision Futur Média en attendant Chérif Dia 9 h mooy doog a jot donc dans quelques minutes dinañu àndandoo ak waa ministère de la santé et de l'action sociale fàttaliwaat leen actualité bi mooy bu ñu paree ñoom ci seen point wu tey bi 2 avril ministre bi Abdoulaye Diouf Sarr euh, dina def euh, bilan bi euh, ci bopp ba tey naka la ñuy xeexee Covid 19 bi donc sénégalais yaa ngi xaar. waaw ñu ngi xaar li nga xamante ni kon moom mooy point bu ministère de la santé wala def ci kanam à travers donc ki nga xamante ni moom mooy tutelle bi di Abdoulaye Diouf Sarr moom it gis nañ ko devant de l' actualité quand même depuis un mois muy secteur bu stratégique comme ni nga ko waxee sànq ci wàllu éducation ndax santé mooy wér-gu-yaram dafa am solo trop ci développement am réew moom moo tax comme ni bi mbir yi ba léegi Pape euh, buñ ci jógee je pense que war na am ay jàngat yu bëri yoo xamante ne war nañ koo def jëm ci li nga xamante ne mooy renforcer sunu système de santé fii ci Sénégal yaa ngi wax sànq professeur Seydi en terme de compétence moom ñàkkul fii ci Sénégal muy li nga xamante ne mooy professeur yooyu ca université boo jëlee également ci médecins yi nga xamante ne ñoo nekk ci hôpitaux yi muy sage-femme yi muy infirmier yi ñoom ñëpp ku ci nekk daal gis nañ euh, taxawaay yi nga xamante taxaw nañ ko ñu am solo yaa ngi koy wax ñiy ni mel mais le problème de de de la santé Sénégal peut-être ci wàllu management la ñi nga xamante ni kon moom rek moom mooy problème moo xam depuis 1960 am ba léegi am nañ ko am na ay plaidoiries yoo xamante ni ñu bëri war nañ ko def ngir respect des normes surtout gën gaa new ñu ne 15 pour cent ci budget ñu dugal ko ci wàllu wér gu et je pense que loolu lépp tuuti na parce que Sénégal gis nga bu dee wàllu éducation liñ ci dugal ci koppar bari na mais nin noonu lañ war a def également ci wàllu santé. Mm-hmm. su ko defee kon euh, problème yi nga xamante ni ñu ngi koy jànkoonteeg duñ ko mën a jànkoonteeg parce que am nañ fi ay compétences jox nga say na yeneen xamante ni domaine boo jël. am na ay Sénégal même dans le monde boo xoolee ci laboratoire yi gën a mag wala ci hôpitaux yi gën a mag dans le monde da nga fa fekk Sénégal bët ki dem yow joxe nga kaaw fële nga xamante ni moom mooy ca Tugal pense que y a lieu comme tu l'as dit de gën ni kon moom mooy suñu système de santé bi gën koo jox dëgg. Mm. mais également encourager gune yi ñuy def série scientifique yi bu buñ ci mm. jógee dem ca faculté de médecine parce que liñ gis également fii Sénégal dalu xel ci wàllu avenir mm. mooy on forme beaucoup d'étudiants mais ñi ci bëri duñ mën a egg hospitalisation ah. yàgg nga dégg temps yi interne des hôpitaux yi doon ko kaas parce que amul sax ay ay yoo xamante ni moo leen di permettre ñu mën a wéyal seen spécialisation mm. Mm. et et avant même crise bi di ñëw euh, bu ñu daan waxtaanee euh, euh, situation bi ak yenn ci ay jafe-jafe yoo xamante ni am na ko fii ci Sénégal moi je disais souvent que dafa am ñaari mbir yu ëpp solo ci dëkk muy éducation ak santé c'est-à-dire loolu euh, gouvernement bu nekk ci réew rek daa war a xar tànk tubéyam def investissement concentré wu ci njàng mi ak wér gu yaram. ak wér gu comme ni ñu ko gisee. ci ci ah, développement man xawoon na maa mer sax période yi nga xamante ni maa ngi dégg ni tabax nañu ay xaw ma lan euh, defal nañu defar nañu stade defar nañu xaw ma lan dépensé nañ ci ay milliards man euh, ab sénégalais laa rek bu bëggal Sénégal lu baax donc j'ai pas essayé de comprendre lan moo taxoon ñu def ko mais taas naa ba tàyyi nii euh, xaalis bi ñuy dugal ci yeneen domaine ci sama xalaat bu gàtt war nañu koo dugal ci njàng mi ak njàngale mi ndax mooy avenir dëkk bi wér yaram bi ndax balaa nga naan naam da fay ne ku wér doo mën dara. muy muy toute question de ni nga parce que euh, sport baax na trop euh, cim réew domaine bu nekk quand ñu jox ko ñoom it xam naa beneen yoon il faut ñu wax seen cas parce que euh, lëf ki concerne leen trop muy le milieu sportif également virus bi posé na fa ay problèmes yu bëri yoo xamante gis nga mm. benn compétition sportive am na ñu fa doon daan seen doole mais comme ni nga waxee wàllu santé mm-hmm. day secteur boo xamante c'est stratégique parce que ku wéerut sax doo tal di tàggat yaram wala bu Dakar am nañ benn faculté de médecine boo xamante ni ko naw ci àdduna bi mm-hmm. mais li nemmee ko mooy li ñuy tàggat ay doom yi ñuy jóge bitim réew suñ leen tàggatee ba pare ñu dellu jariñ seen réew moo ëpp mm-hmm. ay doomu Sénégal yi nga xamante ni ñu ngi le tir à travers kon ñi nga xamante ni rek mooy koy def mais gën a jox gëdd aussi formation bi mm-hmm. mais aussi ñi nga xamante ni bëgg def spécialisation pap ñu leen di gën a gunge su ko defee ñoom domaine bu nekk parce que da nga gis yenn xeetu spécialiste si ne danaan Sénégal lam ci am néew na wala ñi dem nañ retraite amut ñoo xamante ñoo leen di doon et te loolu bu fekkente ni day wéy dana dem nga xamante yenn spécialistes yi dañuy dañuy naax saay fii ci réew mi te pourtant de tàggatoon nañ ci ay étudiants yu bëri ay sénégalais mhm. a i euh, cours wala seen i euh, université day yu nekkul Sénégal naar yi par exemple ak ay étudiants yu jógee ci yeneen dëkk lu ci ëpp fii la ñëw di jàng wàllu médecine. bien sûr muy Maroc par exemple ak Tunisie boo xoolee ba li naan tourisme médical. Mhm. foofu ñoo xamante ni Sénégal posé woon fi problème yoo xamante ba léegi moom la wax évacuation sanitaire. Mhm. wax nga ko fi sànq bërki dem mooy borom doole yi ku ci feebar doo bëgg a fajoo fi Sénégal da dem bitim réew dem ba Maroc te pourtant Sénégal day former sax ay étudiants marocains mais ñooñu bu leen tàggatee pare ci wàllu pharmacie wala médecine. Mhm. mondial fu nekk la nit di jóge di fa dem di faju ji mhm. Sénégal aussi war naa nekk benn ëpp ci wàllu euh, tourisme médical comme ni ñu ko ni ko amee ci xeetu tourisme yi et je pense que loolu lépp question de choix la mais aussi comme ni wax gouvernance et je pense que loo gis rek euh, xëy na musiba am na ci mais aussi mën naa nekk loo xamante ni mënees na cee jàngat pour ñu rectifier ko en tout cas liñ ci mën a tënk daal mooy jàngoro moom bu fekkente ni génn nañ ci mhm. ñu toog ay année ngi nii Sénégal na meloon melo ko moo lay wan ni kon y'a problème xamante ne lan tàdd woon Euh, ñu mën ko dabee di rappeler ne feek ñaari fan Sénégal dana célébrer soixante ans indépendance am réew nag bu doon bu doon mag wala kuy liggéey ñu ne retraité na donc Sénégal bu demee ba wàllu retraité ñuy poser problème yi sax kon y'a encore problème pour éviter la répétition mm. euh, waroon nañu weesu sax taxaw fii di wax problème mu santé fii Sénégal alors que ci soixante ans de l'indépendance mm-hmm. képp koo xam nag mës nga jiite Sénégal je pense que am nga responsabilité koo mën a weesu. voilà la santé avant tout euh, dégg naa sax woykat yi woy ko taasukat yi taasu nañu ko la santé avant tout euh, c'est important nañ ci bàyyi xel. Euh,